histoire moomul loko ko da nga ko fay fekk Dakar moo la mak moo ma mag moo mag suñu waajur yi Rufisque moo ñu mag les quatre communes kay xam ngeen ne Saint-Louis Rufisque gore ak Dakar la woon président lu ñu nangu nga jël sunu histoire xotti ko ñoo bañ loolu projet boobu fa mu fayal ko jëlee delloo jëlee ko fa Dakar duñ nangu waa Rufisque duñ nangu mu ngi mel nga yow di Saint-Louis day tas kon waa Saint-Louis duñ nangu. la vieille ville pour lan président joxal Kir, la fal Dakar ci lañ Dakar il mu la capitale du Sénégal comme ni ko dit, maire de Paris bu Dakar ti Dakar na maire Medina a gouverneur pourtant Paris il y arrondissement man ban ce qu'on Paris soxna faire à Paris mais non il y' a Paris ville lumière donc on dit Paris la capitale du monde les Champs-Élysées Nous tëb pas rek que Paris disparaître Nous sommes Dakar Dakar boulevard Dial boulevard Charles de Gaulle boulevard de la République Dakar Lamine Gueye Dakar Sambe Gueye Dakar Pape Diop Mamadou Diop Khalifa Sall Dakar Soham Wardini mais nga yeewu rek histoire Dakar disparaître quoi lu ñuy wax léegi Medina Sicap Mermoz Wakaam Yoff mais ça c'est pas sérieux Macky dellu lii du mën a jàll ci waa Dakar rek ñu la yëgal ni pestum kanam borom ma fajal boppam waa Dakar ñoo du sax ñoo du ko du nangu waaw bu laajee ay marche ci te ko ci la ni nga def bu la mais mënul jall mais man bu may avocat du ma nangu di parce que histoire la aussi ville chargée d'histoire président def non non dafa ñaaw non non du dem ne président mais quand même ça c'est ce que je disais c'est l'inacceptable et l'inqualifiable